man maa ne woon non au troisième mandat man Talla Ndong maa ne woon non au troisième mandat. grâce au monsieur le président Lamine Diop mi nga xamante ne moom moo dajale njabootu président Macky Sall bi tasaaroon biir Tëngéej boole mouvement yëpp ñu doon benn tey man maa ne oui au troisième mandat grâce à monsieur le président Lamine Diop. Ah lii rek laa soxla lii rek laa soxla lii. waaw wér ma loolu. troisième mandat. ndànk ndànk kii président Macky Sall. may wax ak monsieur le président Macky Sall nag. may wax ak monsieur le président Macky Sall nag. di ko xamal ne ñun Tëngéej ñun Rufisque le futur major Diop mu ngi nii mooy monsieur le président Lamine Diop ñun moom la ñu am. man Benno Bokk Yaakaar laa bokkoon dama bàyyi woon Benno Bokk Yaakaar dama meroon président Macky Sall. parce que ñu fa yóbbu woon ñoom seen intérêt personnel moo leen tax a jóg ñu ñëpp tey dellu si nañ ànd ak man taw boobu ginnaaw président Lamine Diop. donc monsieur le président Macky Sall ñu ngi lay xamal ne Lamine Diop mii soxla nañ nga investiral ñu ko defal ñu ko mu doon kilifa goo xamante ni dina may force de direction ci dëkk bi ngir mu mën a dimbali jeunesse bi topp ci ginnaawam parce que askan bi sonn nañ jeunesse bi sonn nañ. comme maa bëgg doon koo xam ne da ngay

seen santé dëkk ak seen économie wu dëkk méngale ak suñu bos xool lan mooy problème yàlla dimbali ñu si lool ñu def onze pays d'Afrique bi ñu xoolee ba càmbar ba xam tey si gars yi nombre de yi ñuy wax durée mandat yi ak limitation mandat yi waaye waaye sëñ ñun africains yi nañuy jéem fexe di jël suñuy njiit réew bu leen falee ba pare ñu di leen tikki bàyyi leen ñu liggéey librement bàyyi leen ñu jéem a góorgóorlu may leen benn temps parce que fukki at fukki at mënoo seet def lii ñun ñu bëgg ñun waa Afrique parce que tubaab yi ñuy jéem a jël di ko méngale suñuy bopp dañuy fàtte ne chaque jour ñun ñoo nekkoon suñuy waajur ñoo nekkoon jaami ñooñu maman yi ñuy liggéey ñoom suñu ñu ngi yeew suñu ay waajur ak suñu ay maam yóbbu leen ñu di leen liggéeyal seen réew par force ñëpp xam nañ loolu ñu jàng histoire xam nañ loolu kon tey su fekkee loolu xew na ñu ñuy jéem a roy bokkuñu nasaraan si mën nañoo limiter seen ay mandat nasaraan si mën na noo gàttal seen diire mandat mais ñun

constitution bi ñëpp xam nañ ne diiran yi ñu koy laal yëpp fenn leen koy jaar bu fekkee ne jaaruñu par voie référendum bi nga xam ne article 27 moo ñu ko may dañuy jaaraat parlement à l'Assemblée nationale ñëpp xam nañ ko ñu jël mandat bi nga xam ne dañ ko tënk muy limitation mandat ñu digg. bàyyi askan bi ñuy tànnal seen bopp seen jiitu réew dañuy bàyyi askan bi ñuy tànnal seen bopp seen jiitu réew ginnaaw ba ñun xam na ne suñu système bu ñuy voté kenn mënu ko sàcc kon askan bi nañ leen bàyyi ñuy tànnal seen bopp seen jiitu réew kon gis nañ ne lii mooy góom bi ndax am réew buñ ko bokkee ku si nekk da ngay ut sa xel ak xalaat jéem a fexe noo ko jëlee teg si taabal ji ñu waxtaane ko ba xam ne lii mooy li baax ñu def ko kon tey ñun loolu ñu doxe ji woon moom moom la doon jël di leen ko jox pour que ñun waa New Vision ñëpp xam ne suñu mission ni ñu jógee woon dem ci pays yi lijjanti ba xam lan mooy problème bi noonu la ñuy jógaatee dem ci région bi yëpp waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen te xaaruñu ci kenn ndax ëllëg bëgg na noo doon leneen ci suñu biiram réew moo tax ñun xaaruñu ci kenn tàggooñu ci président tàggoo ñu si kenn xaaruñu si kenn waaye kuñ ci fekk it ñu jël ndax il faut nit ñi comprendre lan mooy suñuy blocage réew ñun africain yi